mbokki jalibatu yi ñu bàyyi xel li ñu topp noo ngi del siwaat ci xasida gu tedd gi di ñaan suñu borom tabaaraka taala defal ñuy dégg ak topp ak tawfiq ak taysiir mbokk yu mel ni balaa ñuy jàllaat ci sunu bindab tay bi amaat na yeneen ñaari bayit yoo xam ne dafa bokk ci biir jaalibatu maraaxib wax nañ ne te ñëw ci sunu xasaay gi ñu ne loolu tam boo ko gisee lépp ay leeral la ndax sunu dorso biir bi rek ñu doon fàttalikul benn bayit te mooy wamhu zaqawatan naat ni yaa alim waccaal fu aadiya madinatul olom nga xam ne bayit la boo xam ne ñun indiwuñ ko te am na yeneen mool yu koy indi waaye mool yi nga xam ne dañ leen moolay itali bu yàggut ñoom indiwuñ bayit boobu léeg-léeg am na ñoo xam ne itam dañ koy bokk waaye duñ ko bindaale ci jëmmi xasida gi loolu la ko waral ñu koy bokk mooy da leen wóorul ndax ca la bokk wala bokkut ca ndax bi sëñ Tuubaa waxee ne salaatu man qaada lahu tafdila ala nabi zahibil fadila dolli xewlu yàlla mi nga xam ne moo wommat jëmee ci yonente bi alayhi salaatu salaam tafdila muy ak muy ak gënal nga xam ne yàllaa gënal jëm yonente bi mu ne ala nabi sahibil euh, fadila yàlla na ko sotti ci yonente bi nga xam ne dolli xewlu moom yàlla mooy ku ñu soloo ki mooy borom gëneel yi tafdila ak fadila mooy ku yàlla gënal waaye mooy boroom gëneel yi sunu bind biñ daane woon nag bi sëriñ Tuubaa waxaate ne wa alihi wa sahbi yaa man xalab lii xalba kulli man xadeyta fan xalab fu sëriñ Tuubaa doon waxee ne yow yàlla yaay ki nga xam ne yaa wëlbati jëmee ci man xolub képp koo xam ne jub na waaye ba nga ko wëlbatee rek mu dal mu daw ñëw ci man làqutu ci man ndax man mucc waay laa foofu doon dafa am yeneen ñaari bayit yoo xam ne mool yi dañ koy bindaale xaqiqatan waaye am na ci mool yoo xam ne duñ ko indi am na ci yoo xam ne itam dañ koy bokk am na ci yoo xam moom dañ koy indi bu demee ci mbooloo itali bi bi nga xam ne itali la bee ko ñoom duñ ko indi ci biir xasida gi waaye bu ñuy leeral xasida gi ay wuute yu ci am yëpp yëpp yëpp yëpp lañ koy indaale ca jeexantalu xasida ca tarjumaan ju mujj ya ko def benn tarjumaan ju mujj ya bayit yi nga xam ne dafa am wuute yëpp incha allahu sax xëy na bu xasida gi jeexee day yàgg waaye bu xasida gi jeexee lépp danañ ci def ab jotaay incha allah jàngat jëmi jàll bi dama ak bayit yi nga xam ne euh, ay wuute da ci am ndax ñii dañuy jàpp ne fanweer la mu juróomi téeméeri wooyi ak fanweer ñii jàpp ne ak benn sax ñii jàpp ne ak ñaar ñii jàpp ne ak ñett ñii jàpp ne ak ñeent ba juróom ba juróom benn sax am na ci mool yoo xam ne juróomi téeméeri wooyi la ak fanweer ak juróom benn loolu am na ci sax nga xam ne kon loolu wuutee ñoo baaxee noonu waaye am na bëy bu ñuy wax ba tey yaaman njëkko wiinu lanaa karaama xalal na bi la alaama ndax am na mool boo xam ne daf ne wa aali wa son bi yaaman xalab xal ba kulli man xadeeta fan xalab a indi ma yaaman nga xam ne dañ ko firiwaale ngir ña nga xam ne seen xasida yi am nañ ko ñu mën a xam la muy firi mooy yaaman yow yàlla yow yaay ki nga xam ne yu ko wiinu da nekkal lanaa ñeel ma karaama ci ay xar baax xale nabi yàlla na nga sot ci kaw kii nga xam ne mooy ku ñu solooti zahibil alaama mooy borom mandarga yi nga xam ne loolu la muy tekki rek mooy jamono ju nekk yaa may nekkal ci ay xar baax kon nag salaatu gi na ko jël sotti ko ci jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne mooy borom mandarga mandarga mooy laata muy gane si jamono da eh, sunu borom tabaaraka wa taala daan nay inkiwal ay nit di leen ko yëgal di leen ko xamal lu demee ni yahudi yi ak nasaraan ci ak yu mel ñu ne dem ba jëmi jamono sax ñoom ci jëmmi yahudi yi yàlla yenkiwal na leen xamal leen na leen ki war a gane jamono génn na ci yahudi yi ki nga xam ne mooy yoon ci génn ci yahudi yi léegi nag mu ngi dugg ci arab yi loolu yëpp ay mandarga la yoo xam ne wanoon nañ wanoon nañ leen ko laata alayhi salaam di feeñ jamono ca màkk ak xeexoo yu bari karaama yàllaa ko ci nekkal ndax waxoon na ci xësi dëgg radiitu anil nii karaamaatin wa kut lii bi lanti xan bi maa fàq sa nii waltu sa xir yàlla ma waaye maa ngi ñaan nekkal ma ci lu dul ak yemukaay te nga tàggatal ma lépp lu jafe waaye nga jox ma loo xam ne day kawe sama njot kon yaa man yu ko yunu yow yàlla yow yaay ki nga xam ne da nga nekkal la naa ñeel nu mu jubli ci moom jëmi sëriñ bi karaama ay xar baax kon nag salaatu ko àla nabi yàlla na ko sot ci ki nga xam ne mooy ku ji solo ki fa tabarakallahu saahibil alam mooy borom mandarga bi am na beneen bayit ba tey am na beneen bayit ba tey sëli wa sëlim bi jameel aali wa sëx bii walis taji su ali mooy sëli yàlla nga dolu xel ba tey bi jameel aali ci mboolem waa këram ñëpp wa sax bi ak saabaam yëpp was tajib te yàlla nanga nga nangul yàlla lii ñeel ma su ali sama ñaan defe naa ne euh, ñaari bayit yooyu ñoo topp ci wa ali wa sax bi yaaman xalab lii xal ba kulli man xadit fan xalab bu gisee ñi leeral ko nag mooy ñeneen ñi ko am ba noppi ñi gis ñi firi xasidi gi te gisuñ bayit ñi firi ko loolu moo tax ñi leeralaale ko nii waaye daan ko loolu sax solo si dadut bëri kon bu ko defee tey kon mën nañu jàll ci suñu bindab tey rek bu soobee suñu borom tabaaraka wa taala kon jaalibatu bëri na ay wute waaye incha loolu yëpp bu xasida gi jeexee danañ indi bay yi nga xam ne ixtilaaf da caa am dëgg-dëgg kon tey bu ko defee suñu bindab tey bi ñu ngi war a dalee ci salli wa salliman ala fasihe bikkal si lal fasihe mu ne yow sunu borom salli yàlla nga dolli xewal wa salliman ta nga dolli góolu ala fasihe ci kaw kii nga xam ne mooy aji fasaaxa ji mooy ki leer làmmañ wi mooy aji fasaaxa ji al lisaani làmmañ waaye nag fasaa goog bi ka ci sa kattan bi gi kaaf gi kaaf ak euh, muqaatab la day dellu ci borom bi tabaaraka wa taala moo tax nañ ko yow yàlla yàlla nga dolli xol gu ànd ko dolli wóolu ci kaw kii nga xam ne mooy ku leer làmmañ moo nga xam ne lu wax kenn du ko nattable lu mu wax ñëpp koy dégg ñëpp koy xam ku ko gëm ku ko gëmul ku ko topp ko toppul waaye borom làmmañ wu fasaa moo tax mu naan wax ne ana doolu man nattaqa bi daab baat bii di daab maanaam mboolem ku koy wax maa ko gën a fasaa ci ku koy wax nga xam ne baat bu jafe la ci arab xam ne amul sax ci français boo ko xool waaye ci arab rek la xam euh, ci arab ñoo koy wax amul ci français ana afdalu man nataqa bi daat yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee ne man maay ki gën a fasaa ana afsaw man maay a fasaa man nataqa bi daat nga xam ne dañuy wax daat nga doolu xul wasalima ta nga doolu woon ala fasi ci kaw ki nga xam ne mooy aji fasaa ji lisaani lamañ waaye nag békk ci sa kàttan nga xam ne lamañu lu muy fasaa fasaa loolu ci kàttanu yàlla la lépp lu wax yàlla ko ko wax loo waaye nag mun si la yow yàlla mi nga xam ne yaay aji wàcce ji alfasihi aji fasaaji aji fasaaji bii mi ngi ci jublu yonent yi waaye bii mu ngi ci jublu téere bi yàlla wàcce ci moom mun si la alfasihi nga xam ne wax ju fasaa la waaye wax la joo xam ne dafa ñëw lottal mboolem ay woy woykat xam ngeen arab yi ñi dàqoon a woy ci jamono yooyu ñooy araab yi te arab bi alxuraan dafa wàcc ñëw jommal leen woy wu ne daan nañ ko def xeeti woyin wu ne xeeti woyin booy xool ci fànn woyin yi rek fukki woy juróom-ñett am na waaye ñoom woy wu ñu daan nañ ko woy di xasante woy di taggante lu nit ñi di ko def wala ko si daan songu ngoro di taggante nangam yooyu yëpp xeeti woy yoo xam ne arab yi daan nañ ko def waaye alxuraan moo wàcc jommal leen moo tax ma ne mun si la yow mi nga xam ne yaay aji wàcc ji alfas yi aji fasaa ji te mooy jëmi alxuraan kon nag jëlal salaatu sotti ko ci ki nga xam ne mooy aji leer làmmañ ji waaye leer googee làmmañu leer ko ci sa kattan la waaye salaatu boobu ali na ñëw ba ci waa këram wusama bi ak wa alin yàlla na nga nooyalee man xuloo ba man xolub képp koo xam ne lam yoominoo gëmut la waaye nag tallin ak nooyal waaye nag dikk ci sa kattan nang ma nooyalal xoolu képp ku la gëmut waaye nag ci sa kattan nga xam ne ñoom ñëpp dañuy nooy léegi ñëw womat womatu ñëw topp ma di la toroxlul di la jaamu loolu suñu borom nangul na ko ndax booy xool ñi ko ñi ko yóbboon ci géej gi ñu ci ëpp ñu bëri bëri bëri nga xam ne tubaab bi dañ leen forcé woon waaye gëm yàlla sax ma ngi woon ca ñoom ñooñu ñëpp ñu ci bëri gëmoon nañ sëriñ bi rek laanu waaye tubaab bi dañ leen forsoon rawatina lël bi jëm bayekoon France jëm ci woon daaru marnaan ngir lan di visité kër sëriñ bi bokk am na ci tubaab yoo xam ne gëmoon nañ jëmi sëñ bi waaye dañ leen forsoon loolu moo taxoon sax ñuy wax sëñ loolu moo taxoon nañ defoon abraha ak mbooloom ma te benn bëgg-bëgg rek kaaba ga nga xam ne yàlla ba muy alak benn bëgg-bëgg amoon ña bayekoon France di ñëw daaru marnaan di visité ci kër nag dafa am ñu ci gëmoon moo tax yàlla deful leen nam defoon abraha moo taxoon wa aleen yàlla na ko nooyalee lii ci sama jëmu ji lii ñeel ma man Serigne Touba wa aleen yàlla na ko nooyalee lii ci man Serigne Touba xuloo bu man xolob képp koo xam ne la yóbbu na ko defee nag tëlin ñi dal ne dañuy mokk a lot sëñ bi waaye dañuy jàllal bi ko ñëw topp ci gannaaw sëñ mu taharil mu taxaral janaani yaatal xayri mu ne yàlla nga doolu xel yow yàlla alal muxtaari ci kaw kii nga xam ne mooy ku ñu tànn ko usni xayri mooy borom nopp yiw bi mu taaril janaan yow mi nga xam ne yaay aji laabal xolam ba yaasal xëyri yow mi nga xam ne yaay borom yiw yi yow yàlla mu ne yow sunu borom yàlla na nga doole xol ci kii nga xam ne mooy ku ñu tànn ki muxtaar waxoon naa leen mooy koo xam ne dañ koo tànn ci tànnuwaay bi dañ koo koo taamu nga xam ne taxul dara amul benn gàkk-gàkk set ni wicc kooku muy muxtaar waaye ki nga xam ne mooy borom nopp yiw bi nga xam ne noppam yi maanaam du loo ko wax rek bu gëm ko waaye dëgg rek lay déglu nga xam ne yéeféer ñi boo gisee sëñ Tuubaa di yomb indi usnu xayri boo demee ci minul bàq lim indi ko def naan ñaari yoon bu mu juumut ca minnul bàqdim di wane ne yonent bi moo usnu xayri ndax yii fiir yi màkk yi dañ ko daan ayibal naan yonent bi benn nopp la benn nopp la mooy lu ko waay wax rek ci lopp noppum joor bi ak bu càmmooy bi da koy gëm ca sansa yàlla wàcc aaya na nag ñoom kat ñi ngi lay ayibal di la lor naan yonent bi salaay salaam benn nopp la waaye ñoom ñëpp yàlla tëkkoon na leen ak mbugal moo tax mu ne wala sinu yoosoo na rasulullahi lu ma saabun alima ñi nga xam ne dañ lor yonent bi alayhi salaatu salaam ñooñu mbugal mu rëy te mooy go min humu la sinu yoosoo na ne bi a waaye xullu usnu xayrin lakum waxal ne nopp bi daal yiw képp lay déglu bu jeexee mu bay mu bàyyi kooku kooku mooy jëm yéen tuuti saa sam moo tax yàlla nga dool xool ci kii nga xam ne mooy ku ñu waaye usnu xayri mooy borom nopp bi yiw bi nga xam ne lu baax képp lay déglu waaye mu taxaril janaan yow yàlla mi nga xam ne yaay aji laabal xolom ba yaatal xayri yow mi nga xam ne yaay borom yiw yi na def loolu yéen tuuti saa mu ne wasaliman ali fil ali lisaam wa sax bi waskur karaman xaasaani saam mu ne wasaliman na nga dolli wóolu yow yàlla ali ci kaw yonente bi alayhi salaatu salaam fil ali ànd koog waa këram ñëpp alayhi saam ñi di way màgg wa sax bi ak saabaam yëpp waskur yàlla na nga sant bëtu lépp na ko nangu kon jaali bëtu lépp yàlla da ko sant ci mbaaxam ak tedd nga am moo tax mu ne waskur yàlla na nga sant karaman ci sa tedd nga xaasaani saam gii xasida ba tey mu ne yàlla na nga sotti xéwal ak mucc ala raufin ci kaw kii nga xam ne mooy aji ñeewantu gi wa rahimin mooy ku bëri yéen mànd ci waaye nag wa sahih mooy aji wér ji birëb bi ci borom al islaam islam islaamu boromam ji man yàlla man yàlla mi nga xam ne maha moo far ci man ahi li nga xam ne mooy ab sikk sàkk mu ne na nga sotti ki nga xam ne mooy ku bëri ñeewantu ak yërmande waaye mooy kii wér ki wér ci lan mooy yoonu lislaam rek yoonu boromam bi nga xam yàlla mi nga xam ne mooy ki far ci man sikk nga xam ne li ñu yonent bi indi lépp lépp moom sëñ tubaa nattabliwut ci lépp la gëm waaye lépp la topp lépp la pratiqué moom jëmi sëñ moo tax mu indi ci man mahal ax ñi maanaam yonent bi dafa wéeroon ci jëm borom xam nga yàlla buy wax yonent yi danaan wala qad arsalnaa nangam waaye moom danañu laqad jaakum rasulun mooy docteur bii de moom da leen ñëwal kenn ku nekk feebar bi nga a yëpp na ko te mën na leen ko fajal yonent yee nag dañ ñu fajale say jàngoro yonent bi nag moo lay fekk fa nga fa nga nekk ba nu fajale sa jàngoro moo tax suñu borom neewul ne dane laqat jaakum dikkal na leen yonent yee nag da jàng ñu wa laqad arsalnaa nangam nangam wa maa arsalnaa nangam nangam waaye kii nag laqat jaakum la leen wax laxat jaakum kon yonent bi dara ju am moo tax ma ne yàlla nga sotti salaatu salaam googu ala raufin ci kaw kii nga xam ne mooy aji ñeewantu ci wa raximin mooy ku bëri yërmande dafa wér ci l'islam mooy ki dara lu wér ñorut ko l'islam rek lay topp l'islam di rëbb bi ci borom al islam man islamu man yàlla mi nga xam ne mahaa moo far ci man ah yi li nga xam ne mooy sikk sàkk nga xam ne borom tabaaraka wa taala mooy ki far lépp loo xam ne li yonent bi indi woon la rek sikkul ci moom jëm suñu tubaa amul ci nattable waaye lépp la topp di ko pratiquer salli wa sallim bi jamii al aali wa sahbihi fil haali wal mu ni salli yàlla nga dolli xeel wa sallim ta nga dolli yaw yàlla bi jameel aali ànd ko mboolem waa këram ña gannaaw ba nga ko sotte ci kaw yonent bi na jàlle ba ci mboolem waa këram ña wasax bi ak ay saxaabaam yëpp fii la fii ci biit adduna wal ma aali ak delluwaay bi tamit ëllëg yowal xiyam mu ne yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga doole xewal gu ànd koog mboolem waa kër yonent bi ak saxaabaam yëpp waaye na xéewal googu ak mucc googu fii ci adduna ak ëllëg yowal xiyam nga xam ne du dakk mukkul sëlli yow yàlla yàlla na nga ala xayni naxeem ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy jëmmi xéewal nga xam ne day jëmmi xéewal nga xam ne xéewal yépp yàlla moo ko ko jox ba sax ku am xéewal ku ne ci dara jaam waaye ku am xéewal ku ci barke bi yonent bi sallallahu ci wasallam ci nga ko amee waaye mooy wa al kaw nay ni ñaari kawnu yi ñaari kaw yi nag buñ ko waxee mooy li alquran di wax ne ayuha saqalaani muy nita ak ñoom ñëpp muhammadun sayidul kawnayni wa saqalab nga xam ne mooy sange adduna ak alaxira waaye nag di sangu nit ak jinne mboolem lu yàlla bind rek yonent bi salaay salaam mooy sa sang moo tax ma ne kookee wa sayidi mooy sangu kaw ne ni ñaari kaw nii te mooy adduna ak alaxira waaye baasita naam yow yàlla mi nga xam ne yaa aji tàllal xéewal yi mu ne yàlla nga dolli xéewal bu ànd ko mucc yow yàlla ci yonent bi salaay salaam mi nga xam ne mooy jëmmi waaye mooy sangu ñaari kaw nii te mooy adduna ak waaye nag ak nit ak jinne ñëpp mooy seen sang yow yàlla mi nga xam ne yaay ki tàllal xéewal yi nga xam ne képp ko am xewal itam yaay ki ko jox waaye yaa jël jëmi xewal yëpp na nga jël jëmi xewal yëpp jox ko yonent bi alayhi salaatu salaam loolu yàlla def na ko ko moo tax ma ne yàlla nga ko mucc ci kaw kii nga mooy jëmmi xéewal mooy sangub ñaari kaw nii te mooy adduna ak alaxira waaye baasita naem yow yàlla mi nga xam ne yaay aji tàllal xéewal yi xata xéewal yëpp jël na ko jox yonent bi alayhi salaatu ba képp ko am xéewal ci daraja yonent bi ci nga ko mu ne salaatu ko wa ali na ñëw ba ci waa këram wal cheikh bi ak sahabaam yëpp wa an ximi te yàlla nag ma xéewalee bilaa asan ci lu dul ak lor yaa xayra mubqin yow ngën ci aji des ji joo xam ne mun ximi aji xéewalee la mu ñëw suñu borom salaat gi na ñëw ba ci waa këram ak saabaam yépp te nag ma xéewalee mooy jox ma ay xéewal yu doy kàpp waaye nag xéewal yooyee bu ci lamañ man dara da waxoon naa leen asan bu ko arab waxee rek mooy xéewal gu la yàlla jox nit ñi di wax nit ñi di wax ba nga ñàkk alal ji baraana alal ju dem la ko yàq mooy ay làmmañ képp ñoroon wax ba alal ji far demati moo tax ma ne wa an himi yàlla nag ma xéewalee xéewal yu doy bi laa ci lu dul benn lor bu ca kenn man lor bu ca kenn mën a yàq bu ca kenn mën a catu yaa xayra mukkin yow ngën ci aji sax yaa xayra mukkin yow ngën ci aji des mun himi waaye nag ngën ci aji xéewale yi itam nga xam ne képp kuy des yaa ci gën waaye yaay ngën ci aji xéewale kon moom wane na moo moom feeg yàlla nga fay des rek mi ngi fay des ndax kafaaniyel baax yi mamaata sarmada waaye yooyu baqaa yéen a bee salli yàlla nga dool xol wa salim ta nga dooli wóolu yow yàlla yaa mu nii lal biiri yow yàlla miy aji maye ak baax yàlla nga dooli xol ak wóolu xaalal la si yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne sa mayta bokk na ci turam ya xaynal xurri mooy jëmmi sang yi kon gis nga tagg fii leem mu ne yow suñu borom yàlla na nga dolli xewal gu ànd koog dolli wóolu yow mi nga xam ne yaa aji mayeem ak mbaax nga xam ne képp ku am mbaax yow yàlla yaay ki ko fàggal képp ku am mbaax yaay ki ko jox képp ku tegee ci yoonu siraat mu tëqim yow yaay ki ko jox kon nag sottil salaatu wasalaam ci kaw yonent bi yonent bi salaatu wasalaam yi nga xam ne bokk mooy jëmmi sang yi nga xam ne booy xool sang yu baax yëpp yonent yëpp jukkee ñu amee woon yëpp daraja yi ñu amee man ngeen dañ ko yonent bi moom la yàlla njëkk a sàkk waaye bi yonent bi sunu borom sàkkee ko sàkk mboolem yonent ya ñoom ñëpp dañoo jukko ñu amee maanaam dafa mel ni dañ ko photocopier rek maanaam ñoom ñëpp ñu jël seen jukko yooyu yëpp nga xam ne jukko ñu amee yëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko àbbee waaye nag bañ demee ba nga xamee ne seen mission yëpp pare na jukk yooyu yëpp nag ñi ñëw nag ngir war koo dajale euh, euh, jukk yooyu yëpp nag li jam xel xilaali maanaam jukk yooyu yëpp nga xam ne dañ ko abboon yonent bi alayhi salaam ñi war ñëw nag ngir lan delloo ko yonent bi loolu moo tax nga dégg ñu naan yonent bi moo tëj nubuwa ndax yonent fi jiitoon ñëpp jukku yu rafet rafet lañu amewoon waaye jukku yu yonent bi salaay salaam moom lañ yorewoon ndax min hustahaaral xurra ku la man xëba kon bépp moo ñi saat yañ daan feeñal itam bépp jukku yu njukkoon itam ci ay makaarimul axlaaq ak i tedd nga yonent bi lañ ko àbboon waaye biñ demee ba seen mission jeex lañ ko delloo yonent bi moo tax yonent bi nekk xaatim nabiina wa imaamil mursalina nga xam ne mooy sayidul awlina wal axirina sagub way njëkk yi way mujj loolu moo ko waral kon mooy aynul xor mooy jëmmi sang yi nga xam ne sang yëpp yonent yëpp boo leen dajalee ñu baax ñëpp kay jëmm ji dëgg-dëgg nga xam ne moo leen di jox forme mooy tax ñi am roo am lépp kooku mooy jëmmi yonent bi alayhi salaatu salaam mooy moo tax moo tax mu ne alal la ci yàlla na nga sotti xéwal ak ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne samayta bokk na ci turam yi aynal qurri mooy jëmmi sang ya mu ne ba tey wa ali salaatu lu ñëw ba ci waa këram wa sahbi ak saabaam yëpp waaye wajjut maa ngi lay ñaan yàlla na nga tabee lii ñeel ma bil buróor ci ak mbaax waaye nag bilaa adaawatin ci lu luru ak nooneel wala xuruur du ne ak wor mu ne yow suñu borom salaatu ba mu ñëwee ba ci waa këram ñëpp ak saabaam yëpp maa ngi lay ñaan nga may ma di nga xam mooy ak mbaax waaye bu ci benn ak nooneel am wala ak woru lépp lu xeeti woru woru mooy defe ne yàlla jox na la dara wala nga nekk ci adduna rek di jay sa bopp lu ne nga di ko def fekk yàlla lay jay rek jàpp ne lu baax li ngay def lépp am nga ci tiyaaba am nga ci dara ndeketew na ay ndistal lu ne nga ca lu ne ngay bàkku lu ne ngay def ci àdduna te yàlla mooy borom sañ-sañ lu may nit bu ko neexee jëlaat nga dem ba yomul xam jàpp ne def nga dara suñu borom ne aa ah, yow kat fa jaal naa xa li nga defoon lépp pënd la tey kenn du la fay fii dara safar rek nga jëm yàlla na a moo tax dañuy wax nit ki na sukkandiku ci yërmande yàlla ndax yàllaahu yaa maxfiratu ko arja nakk si boo fax fekk lanaa wax na ko ci xasida ak madul fawsé ni nee na ko sa yaakaar ak sa njëggal moo ëpp yërmande ci ñun ci jëf yi nga xam ne ñu koy fàggu kon kenn du sukkandiku si jëf waaye dañuy sukkandiku waxoo rahimu la fi arjo bi rahmati kon wax na ko ci xasida sax ik fi nii bi mu bi mu yeggee ci turu yàlla bu ñëw arrahman mu ne maa ngi yaakaar ci yërmandem ja bu yemal xaay mu tab ma aljana waaye kenn du sukkandiku ci ak mandu teg yàlla wala sa jëf ji nga jëf rek ndax loolu ku ci sukkandiku rek yàlla dal la mbugal moo tax mu ne wa jut yàlla na nga tabee yàlla lii ñeel ma bil buróor ci ak mbaax bilaa adaawatin ci duru